asalaamaaleykum mbokk internet yi ñuy seetaan fii ci Evidence TV nuyu nañ leen amaan mbégte ak kontaante teewaat fii ci sunu plateau tey nag ak entretien exclusif dañ ko am ak ki nga xamante ne mooy maam Matar Gueye bu ONG Jamra ginnaaw bi ñu leen nuyoo di leen dala jàmm dañuy bàyyi moom Mame Matar mu daal di nuyoo ak sunu mbokk ñuy seetaan Mame Matar nuyu naa la. waa kay jërëjëf soxna Maimouna Diallo xanaa di fopp fay nuyoo bi di ko teg sa loxo nga mën ko wasaare ci mbooleem animateurs yeeg journalistes ak techniciens yu Evidence TV kazalika mbooleem euh, téléspectateur ak followers Evidence TV incha allah jaajëfal nañ la Mame Matar Gueye dañuy daal di tàmbale rek directement ak li nga xamante ne mën naa nekk actualité la euh, ginnaaw bi nguur gi bees gi defee à peu près cinq mois yow euh, boo ñu doon jàngatal ci cinq mois bi bilan sax mën nañ nekk teel na comme ni ko suñu gars yi di waxee mais ci cinq mois yi yow naka nga ñu ko mën a jàngatale waaw ñun sax xaaruñu woon cinq mois yi que ñoom bi ñu fi doogee def trois mois mm-hmm. comme que ñun nekkuñu ay nii nihiliste mooy koo xam ne rek da nga fas yéene gumba tëx mm-hmm. ba sa naataangoo bu mu mën a doon lu mu def rek nga fab sa siwo peinture bu ñuul kukk di càpp ci pinceau peinture ne baaxul ñun duñ def loolu mm-hmm. état yi fi jaar yëpp ba ñu créé Jamra en février 1983 ba léegi ça fait 41 ans ku ci nekk ci ñoom mën nga ñu seedeel cette constance boo defee loo xam ne baax na du ñu am benn complexe taxaw ci diggu penc mi gërëm ko mhm. encouragé boobu acte soo defee safaan wi te muy lu tey xel noonu la ñuy taxawaatee wax la ne tey na xel def nañ ko ak Macky ak Ablaye Wade mhm. ak Abdou Diouf euh, bi mu fi autorisé euh, la la création d'une loge maçonnique de Dakar. Mhm. moo leen jox autorisation ñu ñëw fii ci ginnaaw la deuxième institution du Sénégal am fa siège rafet lu ñu woo parce que ku nekk xam na ne loge boobu dafa bokk ci loge yi xeex diine euh, waaye bi mu defee lu baax mu di l'ouverture démocratique sans restriction parce que bi muy jël pouvoir bi ci Senghor en 81 il y avait que quatre courants keeti qui étaient autorisés socialiste Abdou Diouf jël euh, Abdou Diouf jël ko libéral Ablaye Wade jël ko marxiste léniniste Majhemout Bou Diop jël ko républicain docteur Boubacar gi Abdou Diouf ne jaaduwul ñuy tënk sénégalais yi ci quatre courant de pensée. Mhm. si la defee benn loi nag mu di l'ouverture démocratique sans restriction ñu daal di applaudir des deux mains bi Abdou Diouf demee Abdoulaye Wade di ñëw moom itam bi mu defee lu baax dal di euh, fexe ba la césarienne est gratuite. ñu fexe ba bourse yi dañ koy généraliser ci école yi ñun fii la ñu taxaw gërëm ko tagg ko dem ci télé waaye ba mu jógee mhm. Euh, di seetaan trafiquant de yamba yi sax fa activiste clochard boobu nekk ci diaspora bi <laughs> te di ñuy saaga ba ñu criminaliser yambaam ak cocaïne am def ñu noonu. Mhm. alors bi mu bàyyee dégg nga trafic bi lëmbee réew mi rawatina daan yi faible. Mhm. ay 4 mois 6 mois dañuy jóg xeex mu gi sax ñu xaritoo ak moom. Mhm. mun nañu nag lii ngeen bëgg muy criminalisation bi man mënu ma def décret assemblée nationale lañu koy defee ñu ne ko ñun amuñu accès assemblée parce que juridiquement ONG la ñu mu ne Kocc Barma nee na mm-hmm. nett la ci lamiñu borom lay la dàqee alors bref moom moo ñu encouragé pour ceux qui ne le savaient pas mm-hmm. pour que ñu créer sur les flancs de Jamra benn branche politique bu ñuy wax RDS fas woowa ci la Abdou Latif Guèye président exécutif Jamra yéeg def coalition ak euh, alliance avec la coalition Sopi battre campagne ñu dugg assemblée am député benn député da ngeen am majorité lan ngeen mën a def assemblée ñu ne baax na fii du France de ay on n'a pas la majorité fii mhm. Sénégal la dëkk waxtaan la mhm. ñu daal jël liste député yi xaaj ko ñaar mhm. Latif féetewoo député yi ñëw régulièrement qui ont des bureaux à l'assemblée daal ma jox man parce que awuma accès assemblée ndax du ma député liste yi nga xam ne c'est les grands absents les députés souvent malades alors mu dem campagne yi ma campagne yi au bout proposition Jamra bi pour criminaliser yamba ak yeneen yu mel ni moom mm-hmm. buy ñëw dinañ ko voter effectivement ba loi ba ñëwee mm-hmm. opposition majorité def bloc autour de Jamra ñu voté la loi 2007 31 mm-hmm. du 30 novembre 2007 bi criminaliser le trafic de drogue léegi dootul ay 3 mois ki 6 mois loo tax activiste boobu mere ñu léegi 10 ans le minimum assorti d'une amende qui fait le triple la valeur de la drogue saisie kooku ci nguuru Ablaye Wade la Ablaye Macky Sall la ñëw uh-huh. ñu ndax moom tamit bi mu jógee régler le problème de euh, ama Sénégal mm-hmm. ba sur les trois milliards quatre-vingt-dix-huit millions yi ñu leen ameel ñoom ba ñu sàkkoo si Jamra ñu def médiation bi Jamra décroché na trois chèques de cent trente millions muy trois cent quatre-vingt-dix millions waaye ba Macky Sall la jógee di fëgg dëndam naan tant que je suis là ngóor jigéen kenn du ko fi légaliser mm-hmm. ñu ne ah bravo ndekete ci suuf ministre de l'intérieur mu ngi woo association góor jigéen yi di leen jox ay lijaasa maanaam ay récépissé ce qui contradictoire mhm. parce que mën nañ xam récépissé nga ko jox parti politique un syndicat mais lan mooy ndeyu association góor jigéen nga di leen jox récépissé ñu dal ci kawam te gis nga côté bële bi mu taxawoo liggéeykat qui était victime de licenciement ness mhm. euh, n'est-ce pas victime d'injustice sociale def acte bi mu def xam nga dañ ko tàccu mhm. waaye lii mu def ci borom ñaar yi ñu dal ci kawam kon régime bi aussi bi ñu ñëwee mhm. ci cinq ma dégg ne euh, ci ci ci ci diir bu gàtt jomaay mhm. jóg na def ak loo xam ne Jamra yàgg na di ko kaas depuis quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit mooy nous avons toujours contesté un ministère aussi sensible que le ministère de l'intérieur nga di ko jox un quelqu'un qui est partisan politiquement okay. alors loolu waral nag euh, yokkoon nañu suñu revendication bi général euh, Lamine Cissé gaañu ñu remplacé ko par un civil ñu toogaat quelque temps Ablaye dal di réparé mhm. euh, indi fa le général Mamadou Niang waaye Mamadou Niang gaañu ñu indiwaat fa un civil voilà kon nag bi Diomaye Faye ñëwee mhm. dal di jël ministère bu day noonu nga xam ne dafa war a tëggee njaaxaanaay mhm. mu jox ko le général Jean-Baptiste Tine nous avons applaudi les ba ñu ba mu wëlbatikoo mu jël tamit les forces armées nga xam ne ñun daan nañu liggéey ak ñoom mm-hmm. particulièrement dans le dossier d'indemnisation des anciens combattants de la guerre du Golfe waaye jamono boobu mu fa fekkoon le ministre Augustin Tine moom civil la mm-hmm. bon waslu na ci àq bien sûr waaye bi Diomaye ñëwee mm-hmm. dal di fa nommer un général ñun ci lañ ne ah lii day rafet na parce que ay takk der ab takk a nous avons appelé de demain bi mu jógee léegi war a def ses premières euh, sorties mm-hmm. au niveau des cités religieuses ñëpp a seetaan ko mu def acte bu rafet ba mu demee Touba. Mm-hmm. ba te wax na ko ci kàddoom dafa ne dëgg la dama fi ñëw en tant que chef d'État waaye surtout dama fi ñëw en tant que doom en tant que taalibe sukkal ko mm-hmm. ñoom ñu daal di jël de hauts symboles islamiques ay sajaada kurus kaamil jox ko kazalika ba mu demee Tivaouane on a applaudi des deux ba mu waree def ses première sorties à l'étranger xam nga prédécesseur am yi ñi ci ëpp balaa ñoo kontaan bi ñu falo dañuy dem ca seen nijaay président France ñëw jébbalu ji ne waaw falu naa de waaw ginnaaw yàlla ak sa jàppale <laughs> waaye Diomaye deful loolu dafa def une rupture daal di accorder la priorité mm-hmm. n'est-ce pas à nos voisins immédiats particulièrement la Mauritanie mm-hmm. nga xam ne li ñuy boole ak ñoom dafa bari sur la culture Euh, la religion mm-hmm. mais surtout sur les ressources naturelles mm-hmm. parce que frontière bi ñu yàlla boole ak ñoom pétrole nga fa gaz nga fa mu dem seeti leen Jamra applaudi de deux mains mu wëlbatiku Gambie bi nga xam ne daanaka géographiquement ci xolu Sénégal la ne mm-hmm. mu dem seeti leen Jamra applaudi des deux alors waaye ba mu jógee daal di recevoir bàjjenu góor jigéen bi ne Europe muy <laughs> Charles Michel nous avons crié nous avons dénoncé waxuñu ne nag bu mu ko recevoir. Mhm. parce que président de la république sële euh, ba yoon la. Mhm. ku ne lay recevoir. kon boobu daal maanaam ni mu ko recevoir waaye nag waaye euh, euh, bi. Mhm. li si jamono coow mooy am nga droit recevoir ko de. contrairement à ce que dit Modou Fall Modou Fall bàyyil tooñ ab oustaz du tooñ ndax mu ngi naan waaw lii de raisonnement boobu bu ko toppee xanaa léegi kuy bëgg tukki. di di nga xool ndax kiy dawal avion bi ndax yéefar la wala déet nga seet ndax di nga dugg wala doo dugg mhm. xanaa kon suñu kilifa dinañ ko ci feebar mhm. ba ñu war la defal évacuation sanitaire opéré à l'étranger dinañu gëstu ndax docteur bi ko war a opéré yéefar la wala déet kan ma wax loolu dooleen bàyyi di toxal waxu nit kon maanaam alerte lay doon daal am na droit recevoir franc yi góor jigéen yi dëmm yi nooxóor yi te un chef d'État est de le faire surtout ñun ñi nga xam ne ay néew ji doole lañ mhm. nous sommes sous perfusion des institutions de Bretton Woods Banque mondiale Bretton Woods mm Banque mondiale ak Fonds monétaire et accessoirement euh, Union européenne ah. ñooñu ñoo ñuy chaque fois bu ñu amee des déficits budgétaires chaque fois bu gouvernement bi amee jee jafe-jafe pour matale mhm. distribution engrais yi ak semence bi ñooñu boo jógee ne doo wax ak ñoom te institutions yi dafa fees dell ak borom ñaari tur mhm. fees dell gi formation nga ne doo wax ak ñoom dañu ne na wax ak ñoom mm-hmm. waaye am nañu droit ñun li ñi nga xam ne am na lu ñu xam ci ñoom te mm-hmm. jomaay xamu ko mm-hmm. suñu devoir la ñu alerter kon loolu rek la woon alerter loon alors kon nag pour tontu sa laaj ñoom ba ñu fi nekkee ba léegi ay nit lañu il y a eu des actes positifs que nous avons salués te cité naa la si quelques-uns il y a des actes négatifs que nous avons dénoncés y compris bërëb bu tedd bu day ni université Dakar nga di fa invité koo xam ne il est mondialement reconnu comme étant porteur de deux agendas sataniques mm-hmm. premièrement kilifa la ci GOF le Grand Orient de France mm-hmm. qui est la loge maçonnique la plus islamophobe d'Europe mm-hmm. et euh, en même temps aussi fa gën a dënnam wane beneen maninam mu ne xale yi est-ce que vous savez que je suis le premier parlementaire français à avoir déposé un texte de loi pour la légalisation de l'homosexualité erreur la d'avoir évité rafetlu leen ko rafetlu ñu ko et on l'a dit mhm. waaw léegi nag ba ñuy wax jomaay lu baax yi mu def yooyu ma la wax mhm. ministre de l'intérieur beeg ak visite yi mu def ak ak xale yi ñuy wax lu baax ci moom mhm. ñu ne xum waaye ba mu defee lu normal yi Jamra wax ñu ne waaw da ngeen soxor da il faut être euh, honnête dans vos analyses d'accord alors rafet rafetlu ñu ñu jóg naan ma waaye lu tax waxuloo li ko Sonko tontu ma ne ko toppatoo ma li mu ko tontu nee na ko li lii boo leen ko continuer yéen Europe bëgg ñu imposer vos contre-valeurs mën na dem ba jur casus belli mhm. xanaa jàngu leen français xanaa xamu leen li casus belli yéen waa Jamra casus belli d'abord c'est pas un terme français c'est un terme latin casus yi mooy juboo diku bu tar ba mujj tàbbi si jàmmarloo loolu intéressé wuñu ay casus belli mhm. Moussa belli Firawna <laughs> la mu ko tontu ça ne nous wax ji mooy waru ko fi woon indi moom il a beaucoup d'amis de des panafricanistes am ba ay mënoon na la invité waaye kii mu fi invité xajamal na. Mm-hmm. le climat euh, public. Mm-hmm. ndax boobu Jamra ngi woon ci ay dossiers de médiation sociale. Mm-hmm. di lijjanti le cas des ex-travailleurs de la Sénélec. yi nga xam ne dañ leen dàqoon avec l'avènement euh, des des nouveaux compteurs. ba euh, Birame Souleye l'actuel ministre de l'énergie. waroon ñu recevoir waaye dafa doon fekk mu tukki mhm. mu battale ñu avec son conseiller technique mhm. euh, Ibra Ba qui est un expert euh, financier et en même temps expert en droit social ñu daal def liggéey bu am solo ak moom ah. ba tax na léegi sept cent yi ñu dàqoon mhm. euh, action précédente yi ñu defoon avant l'avènement de ce nouveau gouvernement tax na ñuy résorber résorber ba si sept cent yi cent trente et un moo des ci yooyu la ñu newoon Mélenchon ñëw rek daal di perturber le débat public daal di ko tilimal avec un débat malsain sur l'homosexualité loolu on l'a dénoncé kon daal di yéen da leen di tàgg rek mhm. waaye bu leen dénoncé ku yaakaar loolu ci Jamra juum nga de Jamra ah, est constant buñ defee lu baax muy Abdou Diouf di Abdou Aïda Macky Sall ku def lu baax ñu mhm. tàcc nga def naka sudul noonu ñu ne la lii ànduñu ci loolu nag duñ ci soppi ku yaakaar ne mën ngañu ci soppi mhm. kooku juddoogul kon na leer question boobu ngeen bàyyi wax yi ngeen di wax naan <laughs> toog muy dox naan ban toog muy dox xeex muy dox waaye ñun loolu la ñu xam. dinañ ñëwaat ci question boobu mu ngi ñëw mais ba tey ci actualité ki nga xamante ne mooy madame Aminata ngi Ndiaye nekk président présidente HCCT ak Abdoulaye Daouda Diallo wàccee nañ leen par décret. Euh, bokk na ci li ñuy naan promesse électorale la woon parce que euh, ni ko ñoom Ousmane ko daan waxee euh, alal boobu nga xamante ne ñaari institution yooyu mi ngi koy jëfandikoo xaj na feneen est-ce que yow si ni nga ko gisee tey ni mu xewee fan yi mën nañ nekk promesse électorale bu ñu tenir la wala ab defante xeex entre politiciens la. waaw ñun daal jusqu'à la preuve du contraire. ñun ñi ngi jàpp ne ak neuf la. parce que dañu fekk yi fi jiitu. nga ñoom bu ñu defee ne ñu ngi doog a falu rek Sénégal ñu doog a exister Sénégal existait avant eux mhm. te Abdou Diouf bi ko Ablaye Wade daane leen le 19 mars mhm. Ablaye Wade première réunion ba mu defoon avec ses alliés mhm. pour proposer une réforme constitutionnelle ñun fekkee nañ ko salle de banquet la woon moom moo ñu ne sama première objectif mooy lii fi ab Diouf créé woon nga xam ne du dara pour caser bi personnel politique muy sena bi dama ko fiy dindi ci la yóbboo benn euh, projet de réforme mm-hmm. à l'Assemblée nationale ñu voté ko donc na mu ko waxee noonu la ko defee mm-hmm. waaye daf ko def ba noppi te bien que foofu foofu laa faroon waaye ànduma ci daf ko def ba noppi ñu teg ci biir mu créé loo xam ne la ko wuuteel ak Sénat bariwul lu mu créé le CRAES conseil de la république pour les affaires économiques et sociales daal di ko dénkoon dem si yàlla si Mbaye Jacques Diop mhm. kon nag euh, defante yu sew mhm. ku jënte à travers des créations mhm. dissolutions et des dissolutions et recréations d'institutions au lendemain d'une alternance du fi guléet te liñ ci naqari nag mooy liggéeykat yu néew doole yi ñoom ñooy payer les pots c'est pas normal alors effectivement Abdoulaye Wade ba mu demee ba ba ba jeexal premier mandat mhm. ba mu amee deuxième mandat loolu amaat fi maanaam Sénat ba mu tasoon parce que da doon reproché Abdou Diouf ne pour case de personnel politique mu créé waat ko waaw ngeen bëgg nag du ñu am des raisons de de nous mu créé waat ko mhm. alors deux mille deux mille euh, kii si si kii présidentielle euh, bi mu amee son deuxième mandat mhm. waaye bi Macky Sall la ñëwee Euh, trois ans quatre ans après en 2012 ba alternance am lan la def dafa ne lii Ablaye Wade recréé waat muy Sénat dama ko fiy dindi <laughs> parce que milliards ya ca jëm mhm. xaj na ci sama programme anti inondation ah gars yi dégg inondation ak musiba yi am ci banlieue bi yaayu demoon ñu ne ah lii day wax dëgg yàlla xel ma na ko dégg mhm. mu daal di supprimer Sénat bi Ablaye Wade créé woon nee na jël na xaalis bi dugal ko ci inondation ana inondation yi tey la inondation yamul ca loola ci tas Sénat bi Ablaye Wade créé woon waaye mu créé à côté loo xam ne li ko wuteeg Sénat bariwul muy la ACT CCT au conseil de collectivités territoriales kon def ci ak sotti si rek la yamul ca loola mhm. agence yi fi Ablaye Wade créé woon mu di des agences pour la promotion de l'emploi des jeunes de la banlieue mhm. bokk na ci euh, ANPEJ bokk na ci euh, euh, ANEJ AGET ANAMA mhm. jeunes yi di fa liggéey mu ne c'est des emplois pour euh, caser du personnel politique dóor tasar tas sept cent et quelques chômeurs fii la ñu ñëw ñun nous some sommes demandeurs de rien ñoom romb nañ fii des milliers de cabinets d'avocats des milliers de syndicats et autres fii la ñu ñëw mhm. ñun xamuñu mënuñu waaye sa moroomu jullit sa moroomu compatriote rek d'une manière générale bu amee yaakaar ci yow mhm. da ngay def loo mën ak loo mënul yàlla dimbali ñu ma bind lettre président de la république mu boole ma ak le ministre des finances Amadou Ba mhm. kooku boole ma avec du euh, judiciaire de l'État euh, Antoine Félix Diome ensuite nous avons travaillé avec Mouhamadou Moustapha Ba le ministre du budget mhm. bref de réunion en réunion ak tamit ay jaabante yi dul jeex mhm. euh, tax na ba seen délégué yi ma àndaloon di ko dox muy Ablaye Ciss ak Maja Sène am na lu ñu décroché waaye du lépp nag am na lu ñu décroché à peu près le tiers des trois milliards et quelques yi leen état bi daal di ko séddale liggéeykat yi ñoo am ci li ñu jàpp. Mm-hmm. ñii ñu doon bëgg a dàq ci agence immobilière yi leen loué dem fay seen arriéré de loyer ñii seen doom ñu génne woon leen école ñu mën ko fay et cetera kon loolu conséquence su agence yi Macky Sall tasoon la ndax fayuntoo ak defante yu sew à à l'égard de son prédécesseur. da ngay ragal ne ñoom tamit ci yoon boobu lañ nar a ñun bañuñu mm-hmm. ku koo xam ne ñëw nga nouvellement élu. Mm-hmm. ne da ngay restructurer économie bi. pour rationaliser les charges et les dépenses publiques c'est normal kon ñun waxuñu ne bu mu tas ak bu mu tabax waaye dañu ne na ko def selon les règles édictées par les recommandations directrices de l'OIT organisation internationale du travail ah, et du BIT ñoom lu ñu wax dañu ne bon il est tout à fait normal que un État qui vient de s'installer nouvellement ressente le besoin mhm. dans sa politique de restructuration économique de procéder à des regroupements à des suppressions à des à des dissolution waaye dans tous les cas ñun bureau international du travail ñu ngi recommander ngeen jiital un plan social parce que ñu fay liggéey du ñu ay robo du ñu ay mala ay doomu aadama lañ mhm. léegi nag Sonko la mu posé woon comme condition am na mooy euh, euh, kii euh, Abdou Mbow mhm. jël na initiative woo ay naataangoom président groupe parlementaire mhm. parce que moom moo doon groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar. Mm-hmm. woo na président groupe parlementaire bu Yewwi defe naa Ayib Daffé la. Mm-hmm. woo beneen président bi moom Mamadou Lamine Thiam bu Wallu. Mm-hmm. ba juboo am na ba ñu tëral benn programme. pour joyantiwaat le réglementaire ce qui c'est chose faite. voilà moo tax na bi ma xëyee ci suba gis benn communiqué de la présidence. yu wax ne woote nañu une session spéciale. à l'Assemblée nationale te bokk na ci ordre du jour yi. la déclaration de politique générale jàmm dellu voilà kon Sonko dina def sa déclaration politique générale. Ah, d'accord voilà ñu ñaan yàlla mu def ci jàmm. ku def sa déclaration politique générale nag c'est il est normal ñu di la poser ay question mm-hmm. parce que déclaration politique générale lan la mooy ñun ñii ngeen fal lii la ñu nar ci agriculture bi. lii mooy suñu mbébét ci santé bi. lii mooy suñu eh, intention ci jàngale bi et cetera waaye boo waxee ba noppi tam foog nit ñi laaj la. Mm-hmm. te ñëpp dix-huit million de sénégalais yëpp xaj ñu assemblée. kon ña fa toog ñoo lay laaj waaye yëpp nañ ko def ci anam bu yiw. jarul saagante jarul ñàkkante teggin ak di mhm. xotti war ma mhm. boo leen laajee seen laaj premier ministre bi tontu leen bu fekkee day am benn deuxième tour de prise de parole mhm. li ngeen yaakaar ne war ngeen ci def relance ngeen defaat relance mu tontu leen Mama Tall est-ce que ni nga koy waxee ni dina amee noonu ndax boo ah. seetloo assemblée xeex beeg. ah ñaaw na ñaaw na dogat dogatee bañ waaw waaye nag wolof Njaay dama wax ne wax sa bëgg bëgg ay ñun day jamono loolu mooy suñu bëgg bëgg waxtaan leen ngeen juboo ndax réew mi tongoo xeexoo xaju fi uh-huh. ndax assemblée nationale depuis quelques mois mu ngi joxe une très mauvaise image au plan international na ngeen waxtaan ci njëkk ak teraanga kenn mënu fee imposer kenn dara. d'accord parce que yéen ñaar ñëpp peuple bee fal le président de la République il est élu au suffrage universel direct par le peuple. Mhm. yéen député yi vous êtes élu au suffrage universel direct. kon sur le plan de la légalité constitutionnelle. ay ay naataangoo nañ ay naataangoo bu ko defee nag voilà nañ ko rafetal rek. jaajëfal nañ xam naa dañuy daal di tëj page politique boobu rek mais dama am euh, benn laaj par rapport ak euh, changement bi nga xamante ne nouveau gouvernement bi bi ñu fi teyee ba tey teewul xale yaa ngi gën a euh, jël gaal gi di dem ni ñu koy waxee ci mbëkk mi parce que dañoo amoon yaakaar ne ñoom bu ñu ñëwee rek vraiment. Euh, coono yi dina wàññeeku dina xel yi dina dal mais dañoo seetlu ne mënoo xëy bis te déggoo gaal bu këpp wala ay nit yu faatu mu nekk lu metti ci njaboot yi ndax gis nañ sax ay seeni parent yoo xamante ne ba tey ñu ngi wër seen njaboot en tant que kilifa yow aussi nga am. Euh, waaw waaw ñun xam nga lan moo ci sa xalaat. waaw waaw li ñuy wuutale ak homme politique yi. Mhm. mbel mbel gi ci rajo yeeg télé yi ñun dañ koy moytu ñun dañuy jëf. nous sommes la seule, seule et mm-hmm. unique organisation sur les 125 organisations socio-religieuses qui existent au Sénégal. Mm-hmm. yi nga xam ne impliqué nañu directement dans la politique de dans la politique de résolution mm-hmm. du drame de l'immigration waaw ah, et je prends à témoin le président Macky il est vivant il m'entend voilà fii laa ko woo ne ko dafa am ay jeunes qui ont été victimes d'un escroc mhm. un prétendu marabout bu ñuy wax sëñ Bassirou moo diggoon ne da leen yóbbu Dubaï mhm. di ngeen fa am liggéey dana leen def lii danaa leen nangam mhm. daal di leen laaj ku nekk un forfait nga xam ne paasu euh, avion baa ngi ci ak tamit le premier mois de séjour de quatre millions cinq cent xale yi di bindu rek alors plus de cent jeune sont tombés su ce piège là kon daanaka ça fait un demi milliard quatre cent cinquante millions à peu près alors la mu leen waxoon nag dara amu ci dëgg la yóbbu na leen dakaar Dakar Dubaï mais bañ fa egge mu yóbbu leen ci ay centre d'hébergement xale yi toog rek fu ñu ko woowee waaw maa ngi ji maa ngi lijjanti maa ngi ambassade Canada hmm. waaw léegi mu sotti maa ngi discussion avec tes amul ba yàgg na xale yi mën duñ ko jot alors ñi nga xam ne yàlla dogal na ñi am ñu nekk ay borom kàttan comme que mm-hmm. dem nañu ba ku ci nekk la nga yoroon ci argent de poste ak néew. Mm-hmm. jeex na ñi am kàttan nag bu heure wu ndugg marché jotee. Mm-hmm. dañuy dem ca marché ba gis jongoma naar yi. di leen yenul seen panier. ñu yëkkati weccit jox la nga jënd sandwich wala shawarma wala hamburger. ñi néew kàttan nag dañuy dem euh, ca réfectoire ba étudiant naar yi bu ñu lekkee ba noppi balaa planton yi di dugg di ramasser assiette yi ñu daal di prox ndollu. dem ñëddaatu desitu plat yi moom daal trop tànge boo xam ne fokk na dem alors ñoom ñoo ma woo mhm. man xaw fu Dubaï féete ci àdduna mosuma fa dem aw ma fa mbokk aw ma fa kenn je la dis à l' attention des mauvaises langues yi naan Jamra di def de l' automédiation ñoom ñoo ma woo lu tax woowu ñu la yow alors bañ ma woowee nag <laughs> nettali ma lépp yónnee ay vidéo ay audio ñu nekk groupe de dix mhm. mandaté par leur camarade ku wax bay jooy jox sa morom alors ba ñu paree man leen waa léegi yàlla dafa dogal ONG yi fi nekk ku ci ne ak sa spécialisation boo xoolee suñu jàmbaaru jigéen yëlee nekk ci AJS association des juristes sénégalais ñoom day ami saaxo mm. dañuy spécialisé wu ci lépp lu aju sur la violence faite aux femmes euh, boo xoolee da nga suñu mbokki waa centre de sauvegarde Jacques Chirac mm-hmm. dañuy spécialisé wu dans la désintoxication des drogués mm-hmm. et cetera alors ñun Jamra dañuy spécialisé wu dans la lutte contre la dégradation des mœurs et la préservation de nos valeurs ma ne lii comme que affaire immigration la. Mhm. am naa suma benn naataango suma xarit la Boubacar Seye. Mhm. bu Horizon sans frontières. so voilà euh, mhm. grand ñu ngi lay nuyu waaye gëj nañu déggante. Euh, euh, dinaa leen booleeg moom. alors mu seet nu muy ma mu ne ma non non non ñun Jamra rek loolu lu ma ci mën ma nekkoon nag comme que yóbbante àq la dinaa ci def lu ma mën ak lu ma mënul ci la saisir président Macky Sall m'a ma yóbbu toutes les preuves dama ko accéléré mais ça trop long. Mhm. ñu tëju fa de vingt heures trente à vingt trois heures kon dossier bi itteel na ko. Mhm. parce que moom wax ci làmmiñu boppam nee na man de je ne pouvais pas m'imaginer que sénégalais mën na mettital moroomu sénégalais à ce point. ma ne ko président président Macky Sall moo wax loolu. moo mhm. ma ne ko de li ma nëbb te waxuma ko ndax sutura moo ëpp fuuf li nga jot a dégg ci presse bi alors avant audience bay jeex mu jël téléphone am woo le secrétaire aux Sénégalais de l'extérieur Moïse Sarr waaw ne ko Maxtaar ñëw na fii euh, on a discuté mais il y a plus centaine de jeunes mhm. sénégalais qui ont été victimes d'un trafiquant de migrants ils sont bloqués à Dubaï mhm. na nga jël les dispositions pour rapatrier leen waaye nag yàlla dogal na am na ci ñoo xam ne seeni parent am nañu moyen rapatrier nañ leen waaye c'est minorité mhm. waaye majorité bi état bi yabal avion ñu indi leen ba ñu leen indee ma raconté waat le président de la république bon ma ne ko euh, bii yoon euh, du du du yow yaa ma woo parce que audience ba léegi yow yaa woon mhm. bii man maa ñëw pour deux choses mhm. benn bi sàmmonteeg li ñu signé diina wax nee na man lam yaskuru naas man lam yaskuru naas lam yaskuru laa yow jaam bi soxlaawu ma sa ngërëm bu fekkee ba nga may gërëm jiitalu la ci jëmm ji nga xam ne li tax nga di ma gërëm mhm. ci moom laa ko jaarale kon ñu ngi lay gërëm ma ne ko waaye ñaareel ba nag mooy comme que da ngay def lu baax rek suñu sañoon nag booy def lu baax mu mat benn yoon là le président m'a taquiné ne ma ah yéen Jamra on ne sait pas ce que vous voulez yow def nga conférence de presse mhm. ils ont été escroqués sonn nañu ils sont bloqués à Dubaï dañu bëgg ñibbi jógeti nga fa dem nga RFM matin jóge fi dem diin ak jamono et cetera et cetera mhm. ba recevoir naa leen ba ñu repartir leen mhm. ba yaa ngi confirmé nga ma ne ñëpp a ñëw nañ waa léegi nga naan ma lu kuy def lu baax da nga ko def mu mat lan moo des ma ne ko waa jërëjëf encore une fois. Mhm. dëgg la rapatrier nga leen da nga leen jëlee ci ndóol ga ñu nekkoon Dubaï. indiwaat leen fii ñu fekkaat fi ndóol gi ñu doon daw ba mu waroon ñu gàddaay dem Dubaï. Mhm. comme que indiwaat nga leen le problème reste entier kon bu ñu sañoon bul yem ci rapatrier leen gunge leen faciliter seen réinsertion sociale et professionnelle. Mhm. bref mu jëm a boolee ak mu Mounirou Ly le directeur général de l'ONFP mu Mounirou Ly daal di convoqué atelier bu mag a mag bu ñu defoon le 9 août euh, daaw. fii ci résidence Mamoun. migrants yi euh, euh, yëpp de retour de du bàyyi daje fa ñu jox leen ay fiches. Mm-hmm. ne leen jataay bi mu ngi tudd mm-hmm. atelier d'identification des besoins en formation. ku nekk wax li nga bëgg. Mm-hmm. parce que président Macky Sall dafa ne yéen Jamra li ngeen sollicité maanaam ñu utal leen ay financement c'est bien mais il y a préalable mooy du ñu jox financement ku amul qualification. waxtaan na avec le le le consul mhm. de Dakhla mhm. c'est au Maroc wax na ma ne Guèye Jamra ñu ngi leen di féliciter li ngeen def pour Dubaï waaye fii mhm. à Dakhla am naa lu mel noonu kon problème bu mel noonu nga fa deuxièmement y a des migrants de qui veulent rentrer de d'Espagne ndax ñibbi rek lañu ñu bëgg ainsi de suite Brésil ainsi de suite ba Nicaragua voilà Jamra def na lu mu mën amuñu fond amuñu budget amuñu dara fa la suñu kattan yem voilà une nouvelle autorité nañu eggali di ci des. espérons que dinañ la dégg dañuy nekk ñu ngi si suñu cappaandaw émission. Euh, fan yi Sénégal euh, du ñu ñëw ba fii te laaju ñu la ko euh, mën nañ nekk mbirum rey bi dafa lëmbee réew mi mm. violence bi rey bi bu njëkk ba sax dañ doon nekk ay agression nga daan am ci mbedd mais léegi sa biir kër sa biir néeg lañ lay fekk rey la ay proche li ci gën a fës rek mooy bi nga xamante ne Aziz Dabala ak bu Boubacar Gano di ñaan yàlla yërëm leen ñoom ñëpp xare leen àjjana Mamata Gueye nit ñi wax nañ sécurité bi peut-être am na ñu ne ñoom la du ñoom exactement yow lan nga xalaat ne lii buñ ko tegee ray bi dina fi jeex rek ñu tënk. waaw xam nga déjà euh, ndem si yàlla si nga tudde léegi di Abdou Aziz Ba. Mhm. ñu gën ko xam ci Dabala. Mhm. mais dëj ba seddagul sax dans la même semaine. benn njombe fii ci Grand Yoff euh, ñaari jigéen yi ñu fa doon agressé taximan bi di jàmbaar jàmbaar ñu tëgg ko ñaari bal mu dee dans la même semaine fii ci Bargny ndaw soosu ñu ngi naan bébé Aïcha mhm. euh, tàggoo ne dafa am lu muy jënd ci bitig bi ñëwatul quelques jours après ñu fekkee son cadavre di flotter ci benn lac. Ah. dans la même semaine. benn dégg nga nijaay di xëccoo ak. jarbaatam mm-hmm. jox ma caabi bi ma la kii dëbb ko paaka mu dee. Mm-hmm. kon mbir mi dafa am beneen tournure ndax lii mësul am senegal mm-hmm. Sénégal da nga daan dégg rey bu ñaaw am na balaa ngaa déggati lu mel noonu. deux ans trois ans mais léegi tout les semaines. maa ngi saluer au passage euh, liggéey bu am solo ci wàllu sensibilisation bi euh, Jean Baptiste Tine mm-hmm. ministre de l'intérieur di def xam nga boobu ci bilan jomaay la bokk c'est bien maa ngi wax lu baax ci moom waaye doo dégg ñu wax de waaye boo ne lii d'accorduma ci rek ñu sab alors moom nee na recensé nañu diggante juillet août seize meurtres mm-hmm. bu gën a ñaaw sa morom nga ne bi kon nag toog def taxaw seetlu jot na ndax comme ni nga ko waxee sa njaal benn wax. Mhm. bu njëkk ba agression yi dañ daan fekk dégg nga mari d'Italie may mën a jàll mu tardé ci benn mbedd. Mhm. Euh, wala mbedd bu lëndëm. Mhm. Euh, wala nga demoon xew guddee. dégg nga ñu ñëw mën menacé la ak gànnaay waaye boo jëlee sa portable wala sa porte-monnaie jox leen. dañ laan may jàmm ñu daal di jël lu dem bàyyi la ak sa bakken. waaye mais léegi agression yi dañuy fab sa alal fab sa bakken. léegi yemuñu ci loolu dañuy fekk sa biir kër parce que euh, Abdou Aziz Ba ci biir appartement am lañ ko fekk. alors kon nag. Mhm. ñun damay dañu yaakaar ni. Mhm. nattu bi ñu dal moo daloon rek euh, ñetti état yooyu aux États-Unis mu di Nebraska Oklahoma ak Californie ñoom tamit dañu aboliroon la peine de mort comme Sénégal. Mhm. naka jekk Sénégal la peine de mort est née avec l'indépendance. te yàlla dogal na ñaari yoon rek lañ ko fi mës a appliqué. benn bi c'était le 3 mars 1967. moo doon tentative d'assassinat. Euh, de euh, moo di l'assassinat du député socialiste Demba Diop. fii ci Mbour d'ailleurs sax moom la ñuy tuddee stade bi euh, beneen bi le 22 mars mhm. moo doon la tentative d'assassinat bu Léopold Sédar Senghor mhm. c'est tout kenn mësu ko appliqué. kon da nga bëgg a wax que da nga alors léegi Ablaye Wade ñëw. pour mhm. des raisons humanistes woote réunion parce que moom au moins il avait la courtoisie bu bëggee jël des des décisions de dimension nationale internationale associé si ses alliés parce que ñu ay alliés wam la ci ñi ko fal ci la bokk mm-hmm. on était en alliance électorale avec la CDP garab gi du professeur Iba Der mm-hmm. ñu def tour de table bon ñi d'accordul woon bari euh, professeur Ibrahima Thiam d' accord woon Maxtaar Gueye Jamra Abdou Latif Gueye d' accord euh, borom allah waay dun euh, Cheikh Abdoulaye Dieye d' woon mm-hmm. waaye nag euh, l' écrasante majorité dañu soutenir woon la proposition du président mm-hmm. mu daal di déposer à l' assemblée nationale député yi voté la loi 2004 38 mm-hmm. du 28 décembre 2004 bi abolir la peine de mort waa kon ñun léegi jàpp nañu ne bañ ko abolir dañuy yaakaaroon ne xëy na dana tane mais tey la gën a euh, jolli ñu ne kon ñun Sénégal mm-hmm. laa daf ko abrogé yaakaar ne que ça va on est assez majeur waaye tey la yëf yi gën a metti du ñu xaar nga nga nga nga nga nga génn ci mbedd mi dañ lay fekk si biir kër agressé la léegi dañ lay agressé jël sa alal jël sa bakkan kon nañ ko delloo kon nañu li ñuy ñaan mm-hmm. Euh, régime actuel bi. Mhm. laajul créer lu bees amul fi dara lu des fi tàmbaliwaat la peine de mort était là. léegi ñu ngi ñaan euh, régime bu bees bi. Mhm. ñu abroger la loi de Abdou Abdoulaye Wade. 2004 38 euh, du 28 décembre 2004 qui avait aboli la peine de mort. après nañu ubbi suñu bët di xool waaye bu ñu ko deful. Mhm. te loolu ragal nañ ko waaye ñaanuñu ko yàlla criminalité bi ba tiitaange gi. jéggi dayoo ci askan yu mën na pousser nit ñi mën na leen xiirtal doontele du yoon te ànduñ ci mm-hmm. pour ñuy fayul seen bopp mm-hmm. loolu dara jaru question bi nga xamante ne bokk na si mujj euh, bokk na sama du la soxal lu ngeen yàgg xeex yéen waa Jamra muy question wu euh, homosexualité parce que gis nañ ne booba tey yéen a ngi koy xeex am na tamit ñu koy xeex mais dafa gën a fës ci réseau sociaux yi léegi dañ leen di gis nii ñu ngi toog ci télé yi di wax ñu ngi leen di gis mu nekk loo xamante ne phénomène bu doywaar waar la ma Matar Gueye euh, bi ngeen ci dalee xeex ba tey gis nañ si yenn résultat yi mais gis nga tey nu mu naa takkarnaasee nii waaw ñu ngi sant yàlla bi nga xam ne am na combat bu ñu gagné mhm. euh, c'était dans le régime de Macky Sall surtout ñuy wax naan waaw bi bi régime bii ñëwee ci la ñu gis c'est faux <laughs> Macky Sall li mu daj ci xeex bi jam la doon xeex góor jigéen mhm. gisuma régime bu ko daj gis nañ ne dañu lay attaqué rek nag yow tamit ci réseaux sociaux yi mu waaye nit kuy xeex yamba mhm. di xeex góor jigéen ngay xeex kooka ça <laughs> faire leerul waaw moom laa wax <laughs> activiste clochard boobu di di xeex Jamra ba ñu criminaliser yambaam ak cocaïne am uh-huh. ma ne ko yow weer nga sa ndax ko ci ma nee na ku wax feeñ alors kon Macky Sall toog naa ak moom yemuma ci li ñuy bind communiqué nangam anonyme dañu toog. Mhm. ma ne ko monsieur le président jàppaloo ne c'est un peu te te nag loolu yóbbuwuma foon parce que dama fa demoon comme ni ma la ko wax. pour ñu wut pexe yónnee avion Dubaï euh, sauver les victimes du bu trian sëñ Bassirou Niang bi leen fa yóbbu. Mhm. ñu bloqué fa amatuñu lekk amatuñu li ñu naan. di fanaan ci mbedd bi ñuy ñëwee ci euh, question diverses yi nag. Mhm. ci laa ne président comme que gis la yombul balaa ñuy tàggoo laa bëgg nga xool mbir mi. yow dëgg la yaa ngi taxaw partout ne tant que maa ngi fii kenn du ko fi daganal nangam ak nangam. Mhm. Oba maa ñëw nga ne ko dëppawul ak suñu valeur Justine Trizo premier ministre ñëw ñëpp a mhm. ma ne ko mais li contradictoire mooy pendant yaa ngi wax loolu jullit yëpp kontaan sa ministre de l' intérieur mu ngi jaar ci suuf di leen jox ay récépissé mu ne ma ah ma ne ko ah ma ne ko récépissé carte d'identité la rek. citoyen ni ñu amee carte d'identité nom prénom naissance et cetera nom du père nom de la léegi organisation yi seen carte d'identité mooy récépissé waaye nag récépissé mën nañ ko comprendre ci ku taxawal parti politique wala ku taxawal syndicat ah, mais ana luy ndeyu kuréelu boroom ñaari tur nga di leen jox récépissé mhm. keroog sama kanam la woo Antoine Diome ministre de l'intérieur mhm. alors kon yàlla dimbali nañu ba dañ ci teg ay fan yu néew mhm. euh, mais c'était surtout du temps où Jamra posé woon problème bi pour la première fois Euh, jamono euh, Aly Ngouille Ndiaye mu am ku jël kaddu ci ëttu yëglekaay yi wu ne maa ngi tudd Ahmed Fadel kan je suis le directeur des libertés publique ministère de l'intérieur ñu ngi yëgal askan yu ne mhm. ginnaaw bi ministre de l'intérieur recevoir Jamra bi ñëwoon di signaler ay récépissés yu ñuy jox ay kuréelu boroom ñaari tur mhm. ñu ngi yëgal askan yu ne jot nañu ndigal pour ñu gëstu ko mhm. pour xam ku leen ko jox ak lu tax ñu jox leen ko xam nga loolu ndam la. kon fi ma waxee yow. Mhm. te na ko góor jigéen ñi xam. Euh, bloqué nañu toutes les demandes qui étaient en instance. ah amoon na yeneen demande tamit. waaw ils ont ils ont euh, accordé neuf ci nguuru Abdoulaye Wade sept. ci mhm. nguuru Macky Sall sept plus neuf du onze du seize. Mhm. voilà yooyu rëcc na waaye léegi toutes les demandes à peu près trente deux Jamra bloqué na ko loolu ndam la. moo tax temps yi gis nga góor jigéen yi saaga yi ñu may saaga <laughs> dans les réseaux sociaux. waaw gis nañ ne moom alors loolu yaa ma doon laaj ban résultat lañ ci am loolu résultat bu rëy la. Euh. deuxièmement beneen bi c'est un résultat collectif. Mhm. mooy posé nañu un acte fort. mu di l'exigence de criminalisation de l'homosexualité mhm. comme ni nga ko xame la majorité parlementaire euh, sortante. Mhm. indi nañu ay galgal. waaye le nouveau régime jël na engagement ne. ñoom bu ñu amee majorité à l'Assemblée dinañ ko criminaliser. léegi nag li ci kanam rawu li gët ngi toog di leen xool ak di leen observer question bi may tëjee rek Mame Matar boisson bi nga xamante ne moo lëmbee dëkk bi xaw ma sax ndax euh, sama caméraman ne permettre nañ ma ma tudd tur bi mi ngi hmm. lëmbee dëkk bi bu vodi vodi nekk ci boutique yeeg euh, hmm. station yi xale yi di ko jëfandikoo sans que seen waajur yi xam ko yéen euh, au niveau de Jamra yan jéego ngeen nar a jóg taxaw pour baare li ni mel vodi daal tur wee changé rek hmm. Jakarta moo fi dekk moo dekkiwaat ndax xam ngeen ne problème bi jiboon na fi en 2015 Jamra kott ko xeex ba yàlla def ci ndam ndamawuñu ko nag. Mhm. waaye il faut léegi may leeral. muy vodi bi sa fait les mêmes am na sàngara ci biir. vodi est-ce que kon euh, Jamra du jogaat comme na mu xeexee woon. Jakarta waaw sama téléphone a fay rek. waaye dama la naroon wan communiqué ba ñu defoon. Mhm. Euh, sensibiliser autorité yi kon dañuy jógaat parce que du ñu nangu mm-hmm. ñoom ñiy def ñaawteef yooyu seen doom du ko jëfandikoo ah. seen i jarbaat ñu jàpp ñun suñu ñun baadoole yi suñu doom suñu jarbaat di leen yàq mm-hmm. pour les transformer en futur soulard de deme duñ ko nangu mm-hmm. kon na Jamra xeexee woon Jakarta bi Jakarta ba tëj ñu dem ubbi beneen sa Thiès ñu jël échantillon liir ñu bind ci salañ-salañ ñu xeex ko kooku tëj ñu dem Louga ubbi beneen bu ñuy wax nàmp bi ñu xeex ko boobu tëj. Mhm. de la même façon euh, euh, bi euh, vodi bi dinañ ko xeexal incha allah voilà kon nag kontaan nañu ci sujet d'actualité yi ngeen soulevé. ñu mooy doxal réew mi. ndax ce pays nous appartient à tous et nous devons le construire ensemble. te si Ahmed Tidiane si Al Maktoum. Mhm. la mu waxoon mhm. méngoo ak seen démarche. nee na jamono ngi jëm ci période boo xam ne. ñiy gagné guerre yi. du ñu ëpp char de combat di ñu ëpp ñu ëpp ay ay ay missile mhm. pour mën di bombarder dëkku jaarmu ñu ne mu ne déedéet mu ne mhm. ñi sortir victorieux mhm. des guerres du futur mooy ñi am xarañteefu yàq détruire la jeunesse d'un pays nee jeunesse moom boo ko détruire rek gagné nga la guerre de ce pays te yéen nag seen action seen action yéen waa évidence ak yeneen yu mel ni yéen yéen ngi travailler à la base pour ñu jéem a récupérer xale yi nga xam ne dañu nekk ci buntu yàqute am na xale yoo xam ne dañu am éducation bu baax bokk ci famille bu baax mm-hmm. bëgg lu baax bëgguñu bon mais dañuy daje ay borom bopp yu di leen gëmloo lu amul mm-hmm. xam naa beneen yoon dinañ am temps ubbi ko ndax euh, léegi dugg nañ sax ci réseaux sociaux yi mm-hmm. les les les narcotrafiquants di gëmloo xale yi ne am na ñaari xeetu drogue drogue douce mu di yamba bi chanvre indien hashish cannabis bi jóge Mali lopito bi jóge Nigéria brand bi jóge Ghana mooy gàncax yi sax ñu gëmloo xale yi ne loolu drogue douce la ba pare beneen catégorie bi mooy yi ñuy liggéey ci laboratoire toggaat ko ngir yokk dangaru euh, tooke bi mhm. mu di euh, cocaïne di héroïne di morphine alors ñu ne yooyu drogue dure la xale yi na ngeen xam ne waxi tappale la drogue c'est drogue mhm. suñu médecin bi ñuy àndal di def ay conférence le libano syrien euh, docteur Omaïs leeral na ko mhm. li différencier drogue dure ak drogue douce dafa mel ni ñaari jëmm yu taxaw au rez-de-chaussée d'un immeuble de dix étages ñu ne wopp chrono joxe départ te ñoom ñëpp dañoo dem kii ne lay jël escalier kii ne lay jël ascenseur loolu moo leen wutele du ñu egg en même temps waaye ñoom ñaar ñëppay egg fa ñuy egg nag c'est le cortex cérébral bi nga xam ne moo tax ñu nitee c'est le de la mémoire mhm. le siège de la sélection comportementale convention sociale yi yëpp fa lay ne mhm. lii yiwa dina du ma ko def lii jomba naa ko loolu la euh, THC tétrahydrocannabinol principe actif yamba loolu lay jàpp nërmeelal ko mhm. moo tax su boobaa jëmm doomu aadama fay ne waaye du fi ne kon nag yéen nag mhm. euh, sensibilisation yi ngeen def en amont yéen a ngi dévier xale yi pour ñu mën a moytu ndëgg sërëx yooyu kon na yàlla na yàlla dëgëral seen taxawaay yàlla na yàlla dàqal réew mi seytaane suñu kilifa diine yàlla na yàlla ñoddi seen fante taftal ci wér yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi te làqal ñu Sénégal fu yàq yeegul waa salaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi lay jaajëfal Mame Makhtar Gueye ci recevoir bi ñu fekk euh, recevoir fii si sa kër di leen jaajëfal yéen mbokk internet yi di am mbégte ak te woon fii ci euh, Evidence TV di leen jox dig daje ba beneen yoon merci